Música Je mhm. ne j'ai pas aimé Je ne sax commentaire quoi c'est pas aimé pourquoi imaginez que Deschamps ñu comme bilan euh, avec la presse sénégalaise Vous euh, ils non attends il faut être sérieux Aliou en man sama presse bëgg leen def noonu aussi quoi alors que ñun on est mais bi muy ñëw on était là Aliou pour te rappeler biñ il ko élire en 2015 il est resté un an sans parler à la presse sans parler à la presse kon nag du woon yoon muy ñëw ba Sénégal xam nga lan la waroon def conférence de presse ndax mondial bi ñëpp ko bokk on a des choses à dire dafa waroon woo ñëpp ñu toog waxtaan def conférence de presse di waxtaan di pose muy di ko poser question muy tonto mais munoo dem jëli équipe def fa bilan ay il faut passer un cap man bi ma ko gisee mi ma fekk suñu hôtel mais gars yi ma toogal dem leen man attends je rêve quoi moom c'est un sénégalais c'est un coach sénégalais muy def muy muy suñu fierté trop man naw trop xam nga tax man naw ko on l'a décrié avant le mondial te c'était normal ndax équipe nationale Sénégal koo ko gàddu di nga dégg loolu neex loolu na xari mais nga ñëw Pologne tegal ko loo xamante ni euh, Adam Nawalka seen entraîneur mosu ko gars presque presque mon occasion une but rek la ñu occasion mu def fa coaching boo xam machallah macha allah mën trop contre Japon aussi mu def la même chose José Pekerman ñu ñëw Colombie muy entraîneur boo xamante ni kenn ku ko xam-xam ne ak longévité c'est un grand coach nga tegal ko équation bu waaju dindiwul peut-être c'est une erreur euh, à la 74e minute gars yi dugal na nangu mais dara la pour un coach de son qui qui a 42 ans qui vient d'arriver mais bu ñu ñëwee Sénégal mais waxal ak nit ñi mais tu peux pas ngay une euh, di wax équipe man loolu dama ko ñaawlu non ko n'ai franchement j'ai pas aimé du tout Je j'ai pas aimé